dañu nekkoon démb si ñetti cas euh, mais si ñetti cas yooyu ñetti pratiquement euh, wér nañu léegi de dañu dellu seen kër mais tey malheureusement dañu amaat encore ñetti nga xam ne ñoo ñëw yokk cas yooyu ñu amoon Ziguinchor dañu toll léegi si juróom benn cas si juróom benn cas yooyu ñett nga xam ne ñoo mujj ñëw dañu nekk cas communautaire mooy cas yi nga xam ne kenn xamul kan u kan fan la jëlee feebar bi kan moo leen wàll donc loolu la wax communautaire donc Ziguinchor région de Ziguinchor sinon commune de Ziguinchor fu ñu toll ni mooy feebar bi mu ngi circuler jàngoro ji virus bi mu ngi circuler si communauté bi donc il faut ñu bàyyi xel lool ci loolu bàyyi xel parce que tout simplement bu ñu respecté bu baax mesure gouvernementale mesure santé surtout d'abord ah, yaakaar naa dañu am dàmm si lii donc maa ngi ñaan communauté bi képp ku nekk si euh, fu mu nekk daal mu jóg mu jël affaire yi comme affaire am personnelle mais balaa mu jël ko comme affaire am personnelle moom si boppam na aar boppam mooy mu respecter mesures yi